gërëm ko aussi ci leeral bu am solo bi mu def ci yëngu-yëngu yi xew di wax ne rek ci kanam tuuti sax dinañ dem wuyu ji commandant bu bi pour wan nit ñi ne dawuñu visite technique bi tudd ko visite technique bi valable na ba deux mille vingt cinq waaw loolu tamit nañ ko leeral pour ñu xam ne lépp lu àndoon man ak oto bi ay pièces yu mat sëkk la yoroon bu ñu ñëwee nag ci li nga xam ne moom mooy waxtaan bi justement devoir la ñu wax xam nga devoir dafa bokk ci respect institution yi moo tax ma ne si kanam tuuti ñun dañuy dem wuy ji duñu bokk mukk ci sénégalais yi diggal sénégalais bu ñu la wooyee pour wuy ji wala ñu ñuy woo ñu bañ a wuy jamais de la vie jomb nañ koo def ndaxte booy woo nit ñi ci cet dafay fekk nga nag bu ba pare waaw bu benn institution soxla da war a dem moo tax ñun dañu wax ne devoir ku kenn ku nekk sénégalais yi war a am ñun dañ ciy jiitu di ci woo sénégalais yi ñu delloo réew mi ci li nga xamante ne lii moom mooy respect des institutions jox président de la république cëram jox képp koo xam ne ndawal buur nga sa cër jox sunu kilifa diine yi seen cër ndax nga bëgg ko ak nga bañ ay institution lañ te ñoom seen boso gën a wóor ndax yàllaa leen ko def donc nag loolu dafa am solo ci réew mais surtout